xamal tey dakaar Buzz li ma naan dafay dox ci social di dox ci actualité lépp loo xam ni rek lu yitteel jaamu yàlla yi Dakar Buzz di ci dox te ñu seet si suñu frère muy Ouma doomu dëkk bi ñu war a waxtaan ak moom lu bari partager moom mu dëkk Pikine ginnaaw raay nekk nag jeune bu engagé jeune boo xam ne bari ngeen lu ngeen koy gis ci Facebook bi ci Instagram bi TikTok bi yëpp muy kaas li muy kaas nag kaasalul boppam li muy kaasal mooy intérêt dëkk bi particulièrement jeunesse bi ndax gisee jaay doole bi fi amoon injustice bi fi amoon mu jóg di ci kaas te dooleem demeewul noonu ba loolu nat dal ko ci ñu jàpp ko ci laax ko jant bi ñu war cee waxtaan lu bari nag li tax ñu jàpp ko ak ci nan lañ ko jàppee ak dundin bi rëbës tey mu génn ñu am exclusif bi pour waxtaan ak moom parce que Dakar Buzz li ma naan bari na lu nit di jooy da ngay jàpp ni fi nga ko mën a jooyee rek mooy Dakar Buzz parce que dafa équilibré ci dëgg lay dox ci dëgg lay liggéey te ci dëgg rek lay ànd ak jaamu yàlla ma bàyyi ko mu nuyoo ñu door dugg ci biir waxtaan bi moo nuyu naa la. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum monde entier waa man la seen frère moomu doomu dëkk bi comme ni ko Fadel waxee eh, ngi nuy am internet yëpp di leen baalu àq ci weeru koor gi di leen baalu àq. Mhm. d'accord euh, naka koor gi. waaw koor gi ñu ngi ci de. waaw maa ngi ci. waaw ah, doomu dëkk bi tey eh, laataa ñoo dugg ci biir waxtaan bi ñu mën nañ xam. adresse am fan la jógee fan la juddoo fan la yaroo ak ci ci ban anam fan la ci lan la nekk. waa man ginnaaraay la juddoo Pikine ginnaaraay sud fi laa yaroo fi laa màggee li may liggéey nag man technicien laa quoi en froid industriel damay defaale en même temps batiment ak panneau solaire quoi. d'accord am nga am nga soxna. am naa soxna waaw. ak engagement yi nga jël ci dëkk bi yëpp. waaw mais noonu la xam nga Sénégal bu bu soxlaa nga jël yaay teg ko nele day ne day naqari nag ci déggin quoi ñu ne kii jël na yaayam teg nele jël jabaram teg nele jël doomam teg nele jël ay mbokkam teg nele parce que da ngay dem ba toll foo xamante ni mu baax rek ngay bëgg dangay ngay teg sa bakkan pour mu baax rek pour une bonne fois quoi ci loolu lañ nekkoon nag ba yàlla gis nga def na nañ ko quoi. d'accord jël yaay teg ko fee waxin la dégg-dégg la laaj euh, ndax mën nga ñoo ñëwal ci nattu bi euh, parce que gis nañ ni ku yàgg révolté nga ku yàgg kaasal sa dëkk ku yàgg kaasal gox bu télé bi amul doo daan nga kaas bu oto bi ñëwul nga kaas. bu inondation bi nga kaas euh, kaas yooyu nga doon kaas tey du woon sa bopp intérêt personnel intérêt population bi la woon tey ba naa la dëkki nattu bi nattu bi ndax mën ngeen xam nan la ñëwee. waaw nattu bi comme ni mu ñëwee ci kaw ñëpp ni mu ñëwee ci kaw ñëpp noonu la ñëwee ci sama kaw ma ma nangu ko nag jaamoo ko sunu borom xam ne yàlla rek mooy tege natt nit mënul teg nit nattu dama toog ay nit di ma woo téléphone appel yi tegaloo lool boobu maa ngi répétition arco léegi parce que man sax lundi maa ngi fa quoi ma toog ba ay vingt une rek appel yi tegaloo tegaloo tegaloo ma ne may ñii luñ may woo lu xew après ma jël. ma wuyoo ki ma njëkk a wuyu daf ma ni ma dawal après coupé keneen waat ma ni ma foo nekk ma ne ko maa ngi ginnaaw raay mais yéen lan la lu xew ñu ne ma xanaa gisoo ci internet bi Anita page Anita bi ñu ngi fa dugal sa say photo ñu ne yow yaay fian euh, financé financé booy yi pour ñu taal terre bi en même temps yow yaa ànd ak Guy Marius Sagna di dem kër autorité yi xam nga di ko taal di wa di wax pour ñu taal kër kër kër kër kii quoi affaire bi def ma ay reetaan mais dama ni garaawul quoi mais bu ma gisee nag ba affaire bi commencé jël forme ma xam ne kat ñii caaxaanuñu comme niñ ko doon defee ñëpp loolu lañ ma ko defee sama tour na ma dem police. kon yow yaa demal sa bopp police. man maa xëy dem police heure bii. ban police. police yu ginnaaw raay commissariat bu ginnaaw raay bii bi ma fa demee ma laajte salaamaaleykum ñu ne maaleykum salaam ma ne man de dama gis ci internet bi. que dañ may wër quoi mu ne ma luy loolu après policier bi reetaan ma ne ko non dama ma wan kooku ma ne ko gis nga nii nee nañ man la ñuy wër parce que maay influencé booy pour ñu taal terre bi en même temps maa Guy Marius Sagna ñoo dem Casamance jëli fi ay rebelle ñëw taal kër Matar Ba di joxe ay kër yenn ministres xam nga commissaire waa ji ni ma non wëruñu la de buñ la doon wër nga xam dinañ ñëw sa kër ma ne ok wala leen benn billet Dakar dem dikk ndax dañ ma abaloon 4 hectares. Madina Wandifa ma demoon fa pour ma bëggoon fa dem pour bay soble ren dama bëggoon bay soble préparé suma lépp tool yi ma abal ak lépp may damay dem pour bay soble après bañ jox ma billet bi ma war a dem le le lendemain huit heures man leen nag dañ ne dañ may wër lii billet la jënd naa ko pare dama war dem Madina Wandifa dangeen bañ ma dem yaakaan yaakaar dama daw te 2012 ba léegi du ma nekk ci benn combat ba ki ma ko séqal dee maanaam damay daw bi may jógee Maroc dañ ma wax ni ma boo tegee sa tànk ay Sénégal dinañ la jàpp ay signal lañ la aéroport kilifa gu mag ni ma signal lañ la aéroport boo ñëwee dinañ la jàpp le 9 décembre ma ne ko volu bëccëg sax laa am dinaa wàcc Sénégal bu ma jàpp jàpp ma bi ñu ñëwee ba aéroport ma wàcc romb leen ñibbisi aéroport sax laa njëkk a photo publier ni leen yegsi naa ku may jàpp na ma jàpp xam nga. mais jàpp ñoo boobu parce que amuñu ay argument yu ma jàppee bi ma policier bi nee waruñu la ma ne ko ah day ba ñu dem Casamance ñu daw to du ma dawal Macky Sall ak nguuram lu toll ni tarafatal ay ni ay dégg dama nekk ci loo xam ne nag dafa am ñu ci dee am ñu ñàkk seen cër su ma ci dawee du ma nekk góor quoi man moment boobu loolu laa doon gis ma ni du daw yaa ngi dégg du ma bougé mètre ma ni man leen maa ngi suñu kër bu ngeen ma soxlaa ngeen ñëw mais huit moom du ma fekk suñu kër suba huit heures incha allah damay dem bu ma may jël xam naa kon Casamance ngeen may fekk ma génn dem dama ñëw toog rek après benn policier ñëw sëy bi mu ñëwee ni ma dañoo am ordre procureur pour waxtaan ak yow quoi ok ñu ànd dem commissariat. ñu toog waxtaan mu déglu ma waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan après mu ne ma commissaire moo ni ndax mën nañ dem seen kër ñu xool ba xam amul dara quoi comme ay cocktail mënal toog ak yooyu noonu ma ñëw man leen kaan dem commissaire bi ne ma ndax ma bool ma ngeen yëg ci oto bi ma ne ko déedéet suñu kër a ngi nii après si lañ ñëwee fii bi ñëwee sëy ci boppam dem dugg dem ci ginnaaw douche bi ne fekk sunu waa kër di añ dugg ci ginnaaw douche bi. xool beneen policier bi ñëw dugg ci biir néeg bi bi ma ko ubbilee bunt bi daf ma ne ma yow di nga yor cocktail molotov di ko bàyyi si biir kër parce que yooyu fi nit quoi ay cocktail molotov man musuma gis cocktail molotov ñu ne man maay taal terre bi quoi ridicule après nii bi ñu waxtaanee ba pare ñu enquête ma ñoom dañu vérifier ba gisuñu dara ñëw nañ fee gisuñu fa dara lu toll ni biteel sax gisuñu ko fa sëy dem na ba ci ginnaaw wootu douche bi noonu xool yi xool di waxtaan ak waa kër comme niñ koy defee rek waa kër gi xamuñu mais man xam naa mi ngi dugg mi ngi vérifier mi ngi xool ba xam am dina fi gis dara ma ñëw ma ibi sama armoir ni leen xool leen sama néeg ngi nii xam nga gisuñu fi dara après ñu dem ñu dellu biñ delloo ñu toog ñu kon ne enquête yi ñu enquêté ba pare ku jéngi ni ko bind bind li ma li ma wax foo nekkoon ma expliqué ko fi ma nekkoon jour manifestation yëpp maa ngi woon terrain xam nga ànd ak sama booy fubali bi ma ñëwee maa ngi fii après le lendemain laa xëy dix-huit ma génn dem arko fa la fa la affaire yi léegi nag bi loolu amee xale bu jigéen bi ni ko ban article laay tiire parce que buñ la buñ la buñ la tàppalee dossier ba pare ah ban article il faut am article boo tiire parce que. il faut article bu mu ci def. ok léegi sëy na ko est-ce que doo tiire article quatre-vingt rek xam nga ma reetaan quoi. est-ce que la wu quoi. waaw mu ne mu ne ko ni est-ce que doo def article quatre-vingt rek maanaam da koy soofantal pour ma bañ a xam lan mooy article quatre-vingt te article quatre-vingt xam naa ko dépp bañ ko voté bi mu ne nañ téere article quatre ne ko téere article quatre-vingt ma ne ko xanaa rek maa bëgg a yóbbu si mois. mu xam ne comprendre nga li a waaw mu ne ma mu ne ma ah non yow boo demee pour gars dañ lay la ma ne ko déedéet mandat dépôt laa jëm maanaam ma ma kii après noonu ci lañ ci ay 18 heures ci lañ ma notifié garde à nii bi nga demee ñëwaatoo. bi ma demee ñëwaatuma. la dan la taat tiiral ba pare après ña la lan. ni ma léegi dañ lay mu wax ak commissaire commissaire bi ni ko ah garde à vue ko après ci lañ ma garde à vue ma def fa quatre heures le matin la ñu xëy 8 heures ñu defee defeere ma devant le juge d'instruction ma xabari boobu moo fa nekkoon bi ma demee mu déglu ma première fois devant un avocat waxtaan expliqué lii lii lay toog ma ne lii yëpp amul. li yëpp ñàkk farag Macky Sall la rek te bu ma doon dee du ma farag Macky Sall nit mënul wax ci àdduna luy tax ma faral ak Macky Sall ni laa ko wax juge d'instruction bi xam nga moom ndax li ñu lay toppee nee nañ ma ne ko enquête bi mën na gàtt gàttaay bi mooy sama téléphone mi ngi nii sama téléphone mi ngi ñu sele ba léegi ma ne ko sama mu ngi nii xool sama itinéraire mais boo boo xoolee sama itinéraire di nga xam ni daw ma ah, amul benn lieu de manifestation boo xam dem naa fa te man sama téléphone moom laa yor fu ma fu ma jëm moom laa yor te fépp foo dem itinéraire bi dafay affiché wu ci téléphone bi kon tey bu ñu bëggoon bu ñu ma bëggul woon yóbbu mandat dépôt du ñu ma yóbbu ma parce que benn commissariat bi ma defeere waru moon defeere mais comme procureur mooy seen chef donc loolu lañ mënoon waaw bu doon ci juge d'instruction rek la amaana commissaire bi sax mën na bañ a defeere quoi mais procureur moo teg bakkan bi ni ko boo ko defee réewul dinaa def mandat d'arrêt fu ñu ko fekk nañ ko jàpp juge bi dégg na ma trois fois avant may placer mandat dépôt moom it bi may placer mandat dépôt neexu ko de parce que bir na ma ni bëgguma woon yóbbu mandat parce que dafa xam sama projet ay taal terre man dinaa taal terre déjà le 3 le 3 le kii bi le 3 juin bi rek maa ngi doon xaar trois photocopies yoo xamante ni commissariat bi laa ko doon maa ngi doon lijjanti Bilbao benn ambulance pour sama commune xam nga. fekk jënd naa benn imprimante yóbbu ko école Omar Dia Diouf may leen ko kon kuy def loolu dina taal ay teer man dama jàpp ne nit bala ngay kaas say droit da nga def say devoir te man bir na ma ni ci samay droit samay devoir laa nekkoon damay kaas samay droit mais damay def aussi samay devoir ñàkk farag Macky Sall nag moo tax ñu téye ma 289 jours ci kaso bi. d'accord ñu daal di lay placer mandat de defee euh, déféré la euh, euh, nga jóge fi dem rëbës dem foo xamul. guddi gu njëkk ci rëbës noo ko dundee. waaw muy loo xamul la comme ni nga ko waxee nii léegi loo xamul la mais nag xaaroon naa ko quoi parce que 2019 ba léegi bi élection 2019 jàlle ba léegi Macky Sall taxaw 2021 ni li fi amoon du fi amaat yéen ñi seen portable seen machine di kàcc kàcc ba ci kanam man jël naa xam naa ne kii dinañ jàpp tôt ou tard dinañ jàpp ci laa préparé sam bopp di ko wax sunu waa kër ni leen yàgg yàgg dinañ ma jàpp. bi ma duggee rëbës maa ngi dugg dugg ay lox laa fa duggee lu ma gën a naqari suma adduna nag ci kaso bi loolu kese moom fa metti maanaam lox yi ma fa duggee man dama bëgg karaw lox yi ma fa duggee ma ñëw gaa yi wat ko benn bis boobu laa am lu ma metti ci kaso bi wallahi wal azim benn bis boobu muy bu ñu tagee sama rasa après ñu wat ma kenn ku ne boo ñëwee dañ lay wax chambre bi nga jëm man ma ñëw ñu ne ma chambre 10 nga jëm après garde accompagné ñu ba ci ba ci bi bi ñu duggee foo xamul nga dugg ci benn néeg fekk plus de deux cent personnes xamoo fooy toog xamoo fooy taxaw. xamoo fa kenn xamoo fa kenn non boo boobu xamaguma fa kenn. xam nga ma ñëw taxaw nii après benn waa ne ma nii gars yi ne pour damay seetaan télé fekk fa taxaw ak télé bi xaw ma fu may toog ma ñëw après dem ba ci kaw dàmbaloo bi ma ñëw catu duñ la sax may nga toog parce que xamuñu la ma ñëw toog ci catu dàmbaloo bi après booy nekk. boo yu bëri xam ma fa nag. guddi ga dugg Rebeuss wala bëccëg. maa ngi fa dugg ay vingt une heures. ci guddi gi vingt vingt deux heures waaw. daa fa dugg léegi bi ma ñëwee après ci la ma booy xamee bi ñu ma xàmmeewee nag benn booy bu tudd Wage mi ngi Canada sax léegi nii sànq ñu ngi déggante moo ma xàmmee après nag présenté ma waa néeg bi yëpp moo tax sàmm dis météo woon ci man quoi ba pare mu nekk lu doy waar. d'accord ñu taxaw ci guddi googu rek parce que bi ngeen di entré bi nga rentré vingt fekk kanam yoo xam ne tey euh, miin nga leen miino leen miinagoo leen tëraay bi lan fay wax doy na waar euh, nan nga nan nan bi nga bi nee teg sa tànk ci chambre 10 lan nga yëg. dama dama dama xool environnement bi xool xool xool xool affaire bi affaire bi doy waar quoi ma ne kon lii mooy kaso loolu a njëkk a wax ma ne kon lii mooy kaso mais maa ngi fa duggee tàngaay bu doy waar bu ma yéegee toog xool calculer chambre yi chambre ñaata mètre la war a nekk dèjà loolu a njëkk a la cal bi ñaata mètre la mu nekk ay dix mètres ay dix mètres onze mètres presque de longueur six wala sept mètres de largeur yu dugal fa cent quatre-vingt-douze personne suma ma juumul mais tàngaay bi fa nekk ak nii nit ñi simee ko def yaramu neen man maa ngi naan suba de bis bu ma mënee woote dina fexe ñu dugalal ñuy ventilo loolu laa njëkk loolu moo njëkk a nekk suma xel dinaa fexe lu ma mën pour ay ventilo dugg fi. ñëpp def yaram ñu bëri sax ñu bëri def yaram ne parce que dafa tàng xat amoo foo toog amoo foo taxaw odeur bi aussi te boobu ñu ngi nekk ci jafe yu doy boobu directeur bu bees bi fa nekk ni nekku fa mais chambre 10 affaire bu doy léegi nag guddi jot 23 heures ñu tapé silence pour war a tëdd. dañ tàppee pour war a tëdd man xaw ma ci affaire yi dara maa ngi taxaw ñu ne ma léegi gars yi di njëkkante quoi dañuy njëkkante wàcc pour bu ñu lalee ñu dawaat njëkkante pour am fuñ pour pour mun dañuy lal tëdd wala waaw dàmbaloo ci kaw dafa am ay matelas yu fa nekk quoi mais matelas yi tamit jeex na trop matelas yu jeex laa fa ba laa fekk man matelas yu jeex xam nga ak ay mer gàddu ñëw yéeg ci kaw bi nu yéegee ndeke da njëkkante la pour yëg am place pour tëdd parce que da ngay njëkkante chef de chambre bi ak homme de chambre encadreur yi employé bu ñu ñëwee ñoom ñoo leen di placé ngeen du quoi premier jour ñu paqueté ma affaire bi def ma ay réew ma ne ko lii mooy paquetage Fadel Fadel Fadel bu ñu la paquetee bu ñu paquetee presque quatre-vingts personnes ñu paqueté leen ci benn dix ëpp na sax ëpp na sax quatre-vingts personnes cent et quelques personnes ñu paqueté leen ci benn benn benn benn dix waaye seere bi muy seere wallahi wal azim buñ paqueté ba pare doo dugal sa loxo sa baaraam boo ko dugalee diggante nit ak nit du fa xaj mu nekk lu doy waar loo xamante ni kenn mënu la wax kenn kenn maanaam kenn mënu la wax lii lan la quoi dañ lay pakete ba fadel doo mun nooy xam nga nooy non sa bopp day féete nii mën naa la wan naa mën naa woo kenn léegi. waaw nan ko dama bëgg nga wan ma ko ni ñi xam ak ñi xam ak. nit ñi nit kaafu ganaar. parce que nit ñi dañuy dégg paquetage ak ñun ñëpp xamale lan mooy paquetage. kaafu ganaar. kaafu ganaar laa la wax. billaahi wallaahi wal kitaabi boo fa dugalee ay ginaar def leen boo leen paqueté comme ni nga paquet ni ñuy paqueté nit ñi nii ginaar yi xoolal duñ def une minute deewuñu. est ce que mën nga wan paquetage bi nan lay mel. ma woo kenn mu d' accord noonu xaar mu wannu nan la ñuy paqueté nit ñi parce que nit ñaa ngi naan paquetage paquetage il fallait que nit ñi xam lan mooy paquetage ak tëddin bi nan la ñun xool. defuma ko nag pour weer parce que ne woon sax du ma ko def xam nga ma def ko parce que dina jàngoro da nga koy weer pour mu wér ndax dama jàppoon am na ay famille yu yoo xam ñoo xam fragile seen doom yi ñuy kaso yaa ngi dégg boo ko defee rek amaana seen xol mën na tool ci ci am na ci directeur yoo xam tey. boo leen nee kaso bi am na loolu dañ koy weddi ne amu fa. lool lii nag moo tax ma bëgg a wan directeur yi ak juge d'instruction yi procureur yi paquetage bi nekk rëbës. maanaam xam ne léeg-léeg ñu dugal nit tuumaal ko tëj ko ci erreur boo xam ne àq dox na ci digganteeg moom parce que lii la ko di dund. noonu la demee xaar wan ma loolu. nga gën a fermé ba du am espace. day am ku taxaw fii. nii nii day am ku taxaw nii am ku taxaw ne am ku taxaw ne le ay ponkal non di la buux nii. nii lañ lay buuxee nii. nii ba nga seere après ñu bàyyi tànk dugal kenn kaa yow non sa bopp ne lay féete ne lay nii après ba te téye naa sama tànk fii de non tourné nii espace espace bii la ñuy bañ espace bu espace bii ñëwal ñëwal nii après ma door rocc sama tànk nii nii kaay kaay yow sa bopp fii lay ñëw ñëwal voilà nii ah nga rocc sa tànk def nii ñoom ñett ñëpp defandoo nii ba ngeen seere ba ngeen seere laa nii la nii la nii paquetage bi lii la ba ngeen seere noonu lañ koy toppee nag mais li ma jaaxal nii ak tàngaay bi ne foofu nii la ñuy tëddee nii la ñuy tëddee nii barki alxuraan waxuma ko nag pour weer mais dama koy weer pour mu pour jàngoro ji faju yaa ngi dégg nii lañ leen di paqueté nii la ñuy tëddee léegi nag yow espace su 1 mètre 20 benn matelas yi ñuy matelas yi tegale nii benn espace su 1 mètre 20 la mën nañ fa paqueté 8 personnes lu toll lu mel nii nii 8 personnes 8 personnes ñu paqueté leen nii. moom gis nañ ni nga ñu wanee démonstration wu paquetage bi parce que. Eh, nit ñi dañ koy wax rek te nit ñi comprendre nu tey ñi ni seet à travers Dakar ba dañ comprendre paquetage bi lii dafa mel ni eh, ku dugg ci biir paxu bàmmeel ñoom sax noonu lañ koy waxee ñoom détenu yi soo waree tëdd da wax ak sa benn copain mu ne la waaye booy boo toog boo tëdd jotee nga toog place am ba nga tëdd daan la fis waaye demal nga jël sa bàmmeel waaye ñoom sax bàmmeel lañ ko tuddee du dëgg encore une fois xam naa ni dina laal dina laal ñu bari quoi séquence bi dina laal ñu bari mais juste que pour leeral ak ak ak ak ak ak ak leeral ñi nga xam tam nee condition conditions yi baax na nangu woon képp koo xam ni séquence bi laal na la man la gën a laal wallahi wal azim maa ngi koy jéggalu képp koo xam ni séquence bi laal na lu quoi mais gis nga jàngoro boo ko weeru rek du wér te ñu nekk fële ay jàmbaar lañ ñu ngi koy dund barki alxuraan nii lañ koy dundee chaque jour. ñaata mois nga def chambre 10. chambre 10 noo def ma maa ngi def ay 5 6 jours ci lañ ma jëlee yóbbu ma chambre 46 mu ngi nii gis nga après ci lañ ma jëlee xam nga yóbbu ma chambre 46 fa laa jeexalee fa laa fa laa fa laa tëddee sama kaso quoi. ñaata mois nga def ci Rebeuss. 10 mois maa dawal 10 mois mooy 289 jours yi. xëy xëy rek jàpp xëy xëy bi lay bàyyi lan lan la wax. dara biñ ñu lay bàyyi affaire politique la Macky Sall moo nu bëggoon jàpp. pour wan tubaab bi ni ko ñi yàq jàpp naa leen te ñi yàq jàpp leen gis nga rëbës ñi ma fekk fële wallaahi ñoo xamante ne ah dañuy jógee géej football ñu jàpp leen am ñoo xam teere lañ jóg ñu jàpp leen. ñuy liggéey ba waay am ñuy takk bracelet ñu jàpp leen am ñoo xam drapeau vert lañ am ñoo xam maillot Sénégal lañ leen jàppee sol maillot senegal policiers yi woo la da nga doon manifester nga ne manifester parce que boobu il fallait que Macky Sall comme ñemewul tubaab yi mu wan ko ne ñi yàq ñëpp jàpp nañ leen. yaa ngi dégg mille soixante deux détenus lañ njëkk a jàpp yaa ngi dégg il faut mu woon tubaab bi ne ko ñu yàq jàpp naa leen te moom wallaahi wala azim rëbës ñi ma fekk bu ñu sax ay manifestant ay bal perdu lañ boo yoo xam loolu xoolal ñu kaso nga duggoon leen kaso hmm? boo yoo xam ne manifesté wuñu manifesté waanuñu maanaam bu manifestation amee tey alkaat yi dañuy bàyyi ba suba ñu dem ci lieu ba kun fa fekk ramas la am na benn pël fuuta boo xamante ni pël la pël asafura du pël këram lañ ko fekk jàmm gën ñu daw dàqi booy booy daw dugg ci biir kër gi ñu fekk ju duusi muy jàpp bitigam mi ngi noonu mu bàyyi de pour ju liggéey police yi fekk ci biir bitig bi jàpp ko yóbbu ko rëbës billaahi ko wax wala bitigam bitigam. wala tooñ ko yaa ngi dégg am na booy boo xamante ni commissariat Guédiawaye mi ngi tudd Mamadou Seleba oto police yi dafa toj pono yi dafa toj. booy bi ànd ak beneen booy mécanicien ñëw dépanne oto bi dem ñibbi paam yónni ko gaz booy bi dugg ci biir ci biir ci biir ci biir bitig bi di jënd gaz ñu fekk ko fa ni ko da ngaa bëgg a taal jàpp ko def na huit mois rëbës te kooku moo dépanne oto police yi xam nga mu nekk ay tooñ yoo xamante ni foo ko takk romb na ko. d'accord d'après li ñu fa nemmeeku bi ñu poussé élection yi détenu yi doon nañu yëngal ba. Euh, moor am ci lan nga ci indi ci leer ñi naan moor am na ñi naan amul nan ngeen doon dundee loolu ak li fa a am ndax lu wér la wala wérul la loolu am na bi ñu Macky Sall poussé élection yi waa chambre 48 dañoo jàpp seen lal yi ñëw ba ci buntu bi rek dóor buntu yi daa jeeku après nag ñu tiim ñu ak ay lacrymogène xam nga mais mort amul mais dafa am ay boy yu bëri nag yoo xamante dañu leen évacuer parce que dañu asma dañu amoon asthmatique ci ñu leen jàppee xam nga yóbbu leen mais amul benn mort après bi ñu leen jàppee nag comme boo defee yu mel noon dañ lay yóbbu cellule cellule cellule fa lañ la yóbbu pour piner la quoi ci ginnaaw rëbb mi miir rëbës bi la nekk xam nga ay kañaak lépp fa nekk cellule bi maanaam pour maanaam pour pour sanctionner la quoi fa lañ leen bi ñu leen di yóbbu ci la directeur bi ñëw ni bu kenn yóbbu kenn cellule dinaa ñëw ci directeur bi parce que bari nañu wax ci moom mais dundin bi ci biir kaso bi euh, benn benn bu am ñaari douche ndox bi dañuy njëkkante rang bi sa tour bu ñëwul da ngay xaar bari na ay kilifa yoo xam sax yàq nañ seen tubay parce que seen rang jotagul te il faut que ñu bokk ci rang bi dundin boobu tey li ñu ngi di wax li ma ci indil. waaw loolu naroon na ma dala ah, man mii sax parce que dama dugg chambre loolu chambre 10 la sam bii bi di daw dañuy rang ma ñëw taxaw waaye ni ma. non xaaral ma topp bi. sa mbir même bu sa dee daw da ngay topp rang bi. ma topp rang bi sa a ngi daw ma topp bi après mais dama jékki-jékki rek fippu dem parce que man kilifa laa nag ma dugg mu ne ma la moo tax ñii ñii ma ne ko déedéet man sa mbiir mooy daw yii ngeen nekk man new ma ci sa mbir mu daw may taxaw fii di rang yaa ngi dégg mais période boobu dafa metti woon période juin bi la dafa metti woon quoi ñu toog benn 15 17 jours yoo xamante ni amuñu ndox. nan ngeen doon dundee loolu ak mbooloo bi fa nekk. mu metti douche yi yàqu douche yi day yàqu parce que amoon ndox imagine néeg boo xam ni day jël presque deux cent et quelques personnes amul ndox noonu nan imagine loolu te kenn ku ne dañuy soxla douche bi. douche bi ci biir chambre bi la ne. comme salle de bain rek comme sa néeg nii ñu jënd benn espace tabax fa douche ñaari douche cabine ak benn douche sangukaay. est-ce que hygiène bi dana am parce que nit ñu bari ñi. kenn ku ne ak chaleur bi ngay dégagé ak douche bi raxas bi nettoyé bi ci war dëgg est-ce que hygiène am na foofu. waaw am na fa nag waaw chambre yi moom vraiment am na hygiène avant loolu damay ba la ñëw ci hygiène damay ñëw ci manqué ndox bi parce que toll nañ fu temps bu yàgg boo xam ni vraiment amuñu woon ndox quoi ndox mi metti parce que directeur bi fa nekkoon moo liggéeyul kooku moom du dara dara du dara parce que nit bu ñu la falee da ngay liggéey man def naa ci détention bi 4 yoo xam ne mosuma ko teg bët ba ni mu demee mosuma ko gis xaw ma nu mel. am na ñoo xam dañoo bind audience pour rencontrer ko quatre ans mënul jël benn benn mënul jël benn benn benn audience quatre ans détention bi quatre mois la fa def musuma koo gis kooku liggéeyul kooko yàq rëbës liggéeyul dara dara dara rëbës yàlla mu tim xam mais ku bees ki ba mu ñëwee kii nii euh, directeur bees bi mu ñëwee dafa def passation de service lendi mercredi xëy si na bi mu ñëwee dafa fekk booy di taxaw am na boo yoo xam taxaw nañ trois mois rëbës ndax kër gu xat néeg bu xat dañuy taxaw dañuy rang benn rang cinq personnes rangal côté bi benn cinq personnes rangal côté bi benn cinq personnes amuy vingt wala vingt cinq ñu taxaw ñu si des ñu paqueté li ñu tëdd am na ñoo xam ne dund nañ ko fa trois mois. taxaw ba ba heure. taxaw ba six heures du matin vingt trois heures ba six heures du matin ngay da ngay taxaw. loolu mën na la jox sax feebar. da ngay taxaw léegi boo taxee ba six heures du matin. ba ñu woote appel ba duggaat après ñi taxawoon ñooy tëdd ñi tëddoon jóg taxaw ba 9h bu dee cours matin nga am. changement bi nan la directeur bi def ba changé loolu. ok yokk chambre yi wala la. voilà non yokkul chambre bi mu ñëwee dafa xool néeg yi nga xam ni amuñu dàmbaloo automatiquement mu créé fa dàmbaloo vite fait ñooñu tëdd ba fay jógee nii toog bi bu fa bëree it am am ah bu fa bëree tamit man man man jaaxal na ma quoi. Dambalo ay la comprendre ay étagère la. voilà Dambalo daf mooy mooy mooy mooy dañuy jël comme genre taabal. mais fer lay nekk quoi. ñu ñu ñu suude ko xam nga teg ci ay matelas pour nit ñi di tëdd quoi mais vraiment def na ci liggéey bu remarquable nekk jàmbaar directeur Rebeuss bi billahi wallahi tallahi bu ñu ko joxee 37 prisons yi nekk Sénégal xoolal mu doxal ko quoi gaynde la parce que. loolu dafa ñëw rek mercredi def len len def passation de service mercredi mu jël service aca commencé nag waaw tëdd bi gars yi doon taxaw ñu si bëri ay chambre 30 chambre 31 chambre 13 14 xam nga yooyu ah, chambre 24 yi nga xam ne amul woon dàmbaloo mu fer mu créé fa dàmbaloo foofu moom toog jeex fa ci biir teraay bi comme mbooloo fu mbooloo dajale xataay bi jikko yi bokkul ndax du ngeen am coow seen biir yéen ci ay ay mer nit ñuy énervé ak mer loolu moom mënu fa ñàkk chaque jour ñu fëgg bunt yi am ñu xeex loolu munu fa ñàkk quoi. lan mooy indi ay affaire yu ñàkk fayda rek maanaam nit tëdd kaso dafa metti te am na ñoo xamante ni ñi ngi fa tëdd billaay defuñu dara am ñoo xam ne buñ leen ba leen àttee ñu ñibbi chambre 40 yi ba nekkoon am na benn ñag boo xam ne 6 ans la fa def xaw ma 5 ans ñu àtte ko teg ko 6 mois. yaa ngi dégg penam yëpp 6 mois la waroon doon. mu tëdd fa 5 ans xaw ma 6 am beneen waaye bu tudd Alpha problème portable moo ko fa indi mu tëdd deux ans sept mois ñu àtte ko tëj ko nga xam ni mandat dépôt lu ñu war a xoolaat la juge d'instruction yi war nañu liggéey bàyyi caaxaan war man ni ñi Sénégal nit ñi mandat pour non procureur nit ñi mandat dépôt nit ñi dafa yomb am na koo xam ni sëfër kalandoo la mbay jéey la tudd chauffeur kalandoo la benn waaye moo ko woone ko kaay nga jël si ma kaay nga abal ma pono comme ñoo bokk garage mu dem fa al ko pono ndekete ñoo ñu yaboon dañoo demoon am fu ñu demoon cambriolé moom ñu boole waale ko ci ma ngay dawal trois ans nii baaba Faali Kande mi ngi rëbës dem na enquête de 2018 lañ ko jàpp mu dem enquête 2020 ba 2024 amagul dat pour dem audience li nekk rëbës kenn xamul lan la ko magistrat yi vrai juge yi liggéey yi ñu procureur liggéey mandat dépôt te xoolal kaso bi li muy xat xat xat ni ñu méttee ñun noonu xoolal administration pénitentiaire la gën a métti parce que bu nit ñi wàññeekoo ñoom seen coono day wàññeeku ma ne taxaw di rappel di rappel benn néeg bu def 200 personnes rek coono gënu koo métti jaabante bi administration pénitentiaire oh ay jàmbaar tamit. d'accord loolu lépp nga dund ko rëbës la ko sa famille doon dundee particulièrement sa yaay. waa ñoom dama leen teel a dama leen teel a wax sama bopp quoi sama yaay bi muy wax dama ne ko su ma jàppee bu ma indil añ parce que ci lii ma nekk du ma jóg damay xeexal Sénégal Sénégal bu baax laay xeex Macky Sall da lay ma ne ko Macky Sall li mu nekk président moo dama koy tudd bu poussé sama kanam ngay xool doot ma ko tudd mais nag noppal naa leen bu ma jàppee ngeen bàyyi ma ci jagan bi bu ma kenn indil añ bu ma kenn set bu leen neexee mais su ma génn tamit damay dugaat parce que fii Sénégal baaxul mën naa waaw loolu ma leen wax nag après bu ma leen woowee tamit ma dal seen xel yi leen ni fii man munu man man fu ma nekk fu ma nekk mu ci jàmm nekk man munu ma nekk fu am ay fu ma fa fekkee ay sax damay fexe def lu tuuba ba ba ba ba baloolu jeex quoi. ñu gis ni tam am nga ci tam joué nga ci bu am solo particulièrement ci Sambar nga nekkoon gis nañ ni dugal nga fa ay Sarr ay ay ay ak ay yu bëri yoo xam tey amu fa woon ah, yow sa jëmm tax na tey nga dugal ko fa pour jàppale leen ko mën ne xeex bi yaa ngi doon xeex bi nga nekkee fii mais bi nga duggee tam yaa ngi kon ni di loolu nga ñëw ñu ci tam. waaw mooy li ma la wax sànq rek gis nga nit booy kaas say droit da nga def say devoir c'est pas que administration pénitentiaire ak seen budget ñoo war a gérer loolu rek yow nga mën toog jàpp sa njàmbur quoi man du ma nit kooku man fépp fu ma dem bu ma yegsee damay xool la laa fa mën bi ma ñëw ma ñëw fa digg tàngaay après gars yi julli ba pare. toog ni vraiment mu xam nga woote bu ñu julee pare dañuy woote bu ñu bëggee wax benn affaire fa lañ koy jaarale néegi tàng na kat ku mën a jàpp ku ci mën a jàpp xama ci ay ventilo quoi nga jàpp ci te yàlla tax ma li jënd quatre ventilo dugal ko fa xam nga màggal Tuubaa bi tamit bi mu jotee gars yi ni dañoo bëgg a màggal comme ni ñu ko defee woon daaw mais ku nekk 1000 francs 1000 francs 1000 francs ma xool détenu bi am ñoo xamante ni duñu sax am visite am ñoo xam duñu am colis seen mbokk yi abandonné leen xam nga nga bëgg leen génne kenn ku ne mi franc mi franc ñu màggalee ko man lu lay metti quoi liñ fa dugal ci boisson ak sama yaay Catalina wallahi ëpp na trois cent cinquante mille moom la kaso bi moom lañ màggalee CO yeeg Tampico ko Café Touba yi moom lañ moom lañ màggalee sama néeg damay damay toog ñu parce que lépp lu ñuy def dañuy bale bala ñu tëdd dañuy bale bu ñuy génn kuuru ngoon dañuy bale menace néeg bi raxas douche yi lépp. ma jënd ay serpillère yoo sama jabar ne ko dama bëgg nga dem ci Modou Kenkayri nga jëndal ma serpillère bi mu dem Modou Kenkayri te bu nekk Guinaar Rail fii vrai patriote lépp lu may jënd pour rëbës wallaahi da koy may sama jabar ay serpillère ay balai ay racleur lépp mu jógi sax am na yu mu ko jox yoo xam ni da ko bàyyi ci biir néeg ne ko pour bu ko soxlaa nga ko ko xam nga nekk jàmbaar moom tamit jàpp ci ay dàllu carax pour moom ma dugal pour moom la ñuy jàppee ay satala ba gi décodeur bi fa nekk nii maa ko jënd. d'accord Modou nit ku baax nga Modou Keng li muy wax mën naa koo seede bari na ñooy dimbali ci sa place bi nga yor di kenkaayri fi bari na lu nit di ñëw di jënd nga ne ko bu ko jënd ba ci man mi bari na lu may soxla dem di ko jënd nga ne ma faalal bu ko jënd kon ñu ngi ñaan sa kër gi yàlla yokk ko yàlla yokk kenkaayri ba mu jur yeneen barab ku ne gis na eh, li nga yokk bi nga ñëwee ginnaaw raay itam ñu ngi ñaan yàlla yokk la jàppale la tey ba tey ñu taxawaat ci rëbës bi rek eh, biñ lay génne nan la la ko annoncé chef Mbacke moo ñëw nekk chef bu baax tamit may nuyuwaat administration pénitentiaire vraiment ñu nekk ay jàmbaar ñoo xamante ni man mi bind naa lettre ouverte adressé ko président de la république pour ñu xoolaat seen statut parce que ay jàmbaar lañu gis nga réinsertion sociale foofu lay tàmbalee ndax bi li ma laaj sànq boo duggee xamoo fa kenn xamoo fa dara fajar lañ lay génnee huit heures nga dem si service social boo fa demee adjudant Ndiaye mu ngi fa ak chef Fallou ñoom ñoo lay woo delloo say droit et devoir xam nga wax la wax la règlement intérieur yi xamal la ni fii ñun ñu fi nekk ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bàyyi lépp lu la fi metti gisal benn chef nga wax ko ñu faj ko yaa ngi dégg lépp luy sa droit la la wax ak sa devoir foofu lañu la koy foofu lañ la koy delloowee xam nga ñu nekk ay jàmbaar yoo xamante ni vraiment jot na sëkk président Bassirou Diomaye fay dimbali leen xool seen statut parce que sonn nañ dañuy fayeeku fayee lépp bor am na garde boo xamante ni am na benn détenu bu ko yoreel xar see fay am na benn détenu boo xam ne xoolal moom moo ko moom moo ko jaay xaram mu avance ko desal ko ba 100000 ba tey fay ko ko ñu def nii bokk ndey bokk baay xam nga ñu nekk ay jàmbaar maanaam yéeg jaabante rek di tijji di tijji buntu yi ak tëj appel yi rek fay ñu leen ko ay coono la ñu dund nekk nekk ay jàmbaar ànd ak adjudant Ndiaye ak directeur bi directeur bi tamit jàmbaar gënu koo nekk jàmbaar dafa dugg rëbës fekk ka fa nekkoon def fa tous def fa dara ba dara booloo jeex détenu yi sax pour ñu gis ko c'est tout ton problème bi mu ñëwee chaque semaine day jël audience ñi may wax ak yow nii ku ko bind audience chaque lundi mu jël audience wala chaque vendredi mu jël audience nekk jàmbaar ñëw fekk rëbës amul ndox mu ñëw booy yuusu patriote yuusu moo la moo leen ci moom ne ko mën naa fexe ndox am fii yuusu moo ñëw changé installation yëpp directeur bi jënd lépp luy moyen mu dégagé ko jënd ay type orange ni ñu doon manqué ndox ba nii may wax amatul néeg bu manqué ndox rëbës yaa ngi dégg jënd ay suppresseur chambre 10 bi nga xamante ni moo gënoon métti ci rëbës sax braqué nañ fa xam ne sama chambre la nekkoon mu dem ni dafa bëgg a jógee chambre 46 pour dem chambre 10 parce que léegi macha allah ndox mi dañoo 24 heures sur 24 loolu tamit lu ñu war a wax la parce yooyu du génn quoi ndax ñoom duñ ko génnee comme ñun ñoo fa nekkoon xam li ñu wax ko xam nga. mais jàmbaar la bu ñu ko jàppalee dina changer rëbës bu ñu dindee bu ñu dindee bu ñu dindee wàñ wàññee ni parce que ñoom mënuñu ci dara kaso bi lu mu xat xat xat ñoom mënuñu ci dara chaque jour ngay plus de cinquante personnes lundi ba vendredi plus de cinquante personnes ñu indi leen mandat dépôt mandat dépôt yi moo yombu Sénégal ni ñi mandat procureur bi mandat dépôt yi nit ñi non daf foo natt yomb rek romb na ko dafa yombu trop nga xool nit rek loo xam ne seet de carte sax mën na koo régler ñu procurer mandat la ci dépôt pénitence yi mënuñ ci dara liñ ma rek mooy comme ni lañ même bu nag boo doon taxaw ba fay rek ñoom mënuñ ci dara procureur moo loolu nag jot na sëkk mu jeex mu mu jeex quoi. bu ñu ñëwaatee ci libération bi ci ban anam dañu xëy rek wax la lan. dañu xëy Cheikh Mbacke ñëw fekk maa ngi nelaw mercredi bi passé mu ñëw fëgg bunt bi Mamadou Faye ma ne ko waaw mu ne bu mu ko dagg ma ne ko tijji bunt yi ndeysaan moom mu nekk mu nekk jàmbaar bari ki dem rek ñu ngi déggante mu ubbi bunt yi nii ah. ci ban heure la. ay 13 heures. treize heures moo ma yee yee ma ne ma a ah, acca affaire yi jeex na de ma jóg nii génn. jaaratoo tribunal defaatoo direct fii nga ñibbisi amul amul amul taxaw taxawaatoo. fii laa foo jëm fii laa ñibbisi ñu jox ma sama papier libérable mu ngi nii. parce que dama bëgg ñëw ñu taxaw ci t-shirt bi lu waral nga def t-shirt bi dafa mel ne dafa am t-shirt bi message dafa am kuy wax ah c'est le t-shirt qui parle. waaw xam nga xam nga dafa yomb dafa yomb nga jàpp doomu jàmbur nga jàpp jëkkëru jàmbur nga jàpp papaay jàmbur. mandat dépôt ko ci sa teeyu bakkan ci loo tegul fenn ci loo xam ni ànduma ak yow mu jàppale tëj la deux cent quatre-vingt-neuf jours xëy xëy xëy bàyyi la yaa ngi dégg damay réclamer justice nag parce que foog justice am parce que Mamadou Seck maa xam Diallo yenn juge d'instruction yi maanaam ni ñuy mandat dépôt yu nit ñi sëñ bi moo yomb quoi lii dafa jot ñu yoon am ñoom ñu wax ñu fan la ñu teg jàpp ay nit vingt mois ci kaso bi ci ñoo xam ne defuñu waxuñu xëy xëy rek ñu leen dem leen ngeen ñib ndax endement yéen après noon noonu mu jeex quoi. ak nguur gu bees gi am nga yaakaar ni li fi ne woon jóg fi lu bees lu baax lu gën loolu mooy ñëw. ñoom ñëpp dañuy dem mandat dépo parce que foog ñu dem mandat dépo parce que pour gi nga doo fa gis ju doomu juge d'instruction doo fa gis doomu procureur doo fa gis doomu borom doole ci détention bi ñoom sax bu ñëwee dañu yóbbu cinquième secteur ci sàmbari bakkana yi fa leen di yóbbu fa la ñuy tëdd. léegi nag dafa jot procureur di dem ñu mandaa dépôt ko juge d'instruction ñu mandaa dépôt ko ba ñu xam lan mooy mandaa dépôt ba ku fi mën a toog di nga xam carrément ni kaso waroo tëb tëb rek dugal fa nit quoi dafa yomb ko quoi nit ñi dugalee nit ñi kaso. wallahi Fadel Rebeuss bee jàmbaar dafa nekk Macky Sall dafa xaaj réew mi ñaar fépp la xaaj ñaar sëriñ yi ñaar daara ji ñaar famille yi ñaar. loo xoolal loo xalaat def na ko ñaar tey loo amnistie bi mu ñëwee yenn détenu sax dañ ñoo mere woon dama doon am kersa ndax dañoo amoon yaakaar ki ñu am amnistie leen ñu bokk ci parce que am na ñoo xam ñee ñi ngi fa buñ taxawee tribunal ñu bàyyi la ñu ñibbi tey bu ñëwee ñun ñu mel ni ñun ñooy kumba am nday ñeneen ñooy kumba amul nday kon ñun ñooy ay politiciens ñun ñooy politique léegi ñun am nañ nday léegi ñeneen ña fa nekk moo ñi amul nday xam nga mu mu metti woon ci ñoom nag parce que des fois daan de ñeena ñi dañuy ñëw laaj ma mais mu est-ce que ci lañ bokk bu ñu ma ko waxee rek sama rongo ñu day génn man ne ah nañ dund yaakaar comme Macky Sall moom sañ na lu ne xam nga mais man bir na ma ni bokkuñu si da moo tax xooluñu yenn yenn yenn yenn fee yu xaw nga xam ne mën nga leen a jéggal mais nga takkale bracelet leen sax yow ñoom yow ñoom ñu dem nga mu nekk lu rafet quoi. d'accord moo sa génn yaa ngi génn bàyyi yoo nit yow miinanteel yooma relation ngeen dem ba nekk famille tey nga war a génn te xam naa sa yërmande que ni bi ngay génn euh, tey loolu xaw na laa jaaxal tey parce que déplané ngoo ci pour pour romb leen. damaa dem damaa dem tey tribunal gis nga lii prisonnier bu ma war a seeti la koo xam ni borom baax deful dara mooy ki bi Mbaye Guèye moom laa war a seeti suba vendredi incha allah gis nga. sa tàggoog ñoom. sama tàggoog ñoom métti moom xam lu ma la mu oh bul dem dañ may woo chaque jour. heure bu ñu amee télécentre dañ may woo démb rek moo ci mujj parce que xam nañ man man man fi ma leen teg quoi man gëmuma ay détenus yi nangam ak non man li ma doon li ma doon kaasal li ma doon kaasal ci biir ñi def droit délit droit commun sax bokkul ak ak manifestant xam nga manifestant yàgg yàgg dañuy génn la preuve bi booy dajee buntu buntu buntu buntu chambre bi yëngal foofu dama ñëw taxaw jël ma responsable ni leen ñun bu ñu xeexee ak administration bi ñoo leen ñu xeexee ak euh, détenus fi ñoo doon tooñ ñun kenn lañu am problème mooy Macky la te élection yu mu pousse acte bi mu ci njëkk a posé mooy détenus la njëkk a bàyyi bala moo def dara ta noonu la demee noonu la demee ba ci Ousmane Sonko rek avant muy def avant bi mu tànnee candidat am ñi ngi wax naan ñu ngi xuloo fii kii moo war dem kii moo dem man leen bu mu leen bett bu gisee vidéo Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko homme de défi la bu mu leen bett bu ngeen gisee vidéo Ousmane Sonko di circuler ci internet boo xam ne enregistré na ko en amont bañ ko barricadé te Ousmane Sonko genre nit boobu la quoi te gis nga noon la demee mais vraiment suba la fa war dellu pour seeti leen quoi lépp loo mën nag dinaa ko def pour xeexal leen ñi nga xam ne defuñu dara ñu bàyyi leen même viol yi ni ñuy yóbboo nit mandat dépôt viol kenn mënu la ko nettali yombu yomb boo xam ni kenn maam kenn mënu la ko nettali quoi. Euh, nga def daanaka deux cent. avo avocat yi avocat yi nañu dem dimbali ñi nga xamante ni. ñoo nekk fële parce que yomb na trop ndax man naa taxaw collectif boo xamante ni képp ku jël avocat te sa avocat demul demul seeti la. bokk xeex bi loolu day bokk ci xeex bi ndax nag da xool kër goo xam ne du ñu ndékki du ñu añ du ñu reer amuñu dara mais seen doom bu nekk ci biir kaso bi même bu dee mais fu ñu ko mën a dëmmujee dinañ ko dëmmujee fay ko avocat bi. après mu mu dem ci toog togg ci ceebu jën. mu lekk ko toog mu lekk ko toog du dem. naa baax maa ngi ci affaire yi maa ngi ci affaire yi. noonu lañ lay wax boo waxee ñu ne la dossiers yi ma yor dafa yi nga yor génnul Dakar quatre prisons yi nekk Dakar dossiers yi nga yor génnul Dakar avocat yi nañu bàyyi trian. même bu génnee Dakar sax bu lekk xaalisu jàmm. voilà xamal ko ne ko damaa chargé mënu ma ko jël. benn vendredi dootuñu boobu koo seet day yoo xamante ni ñaari dossiers dañuy yor ci at bi yëpp koo wax naa non dama yor ay dossiers dossiers yi dafa bëri am avocat yoo ñoom xam nañ ni benn wala ñaari dossier duñ ko passé léegi yow nga nit ki jël la wóolu la yaa ngi dégg détenu bi toog fay di la xaar information xam nga nga lekk 400000 am nga lekk 500000 am nga lekk 1 million am ba yaa xam lu la mën a fay nga lekk ko après moom nga bàyyi ko fële quoi seen yaakaar di tas gis nga fadel lundi ba vendredi détenu yaakaar bu tas bi ñuy am ñu nekk mandat dépôt parce que saa boo xëyee rek garde bi 6 heures du matin bu laalee buntu bi. nga yaakaar ne yow lay woo. Oh. jërëjëf bokk yi mooy waxtaan bi nu séq ak moom xol bi tooy na parce que lim dund la te nit ki lim dund moo ko mën a nettali ñu ngi koy masaw muy nit ku am ambition ku engagé jàpp leen ko yóbbu ko mu muñ ko avec ma ci ngor ci fula ci fayda te jom ñi ñaanal tam ñi fa des suñu borom génne leen kasu dafay yokk maqaama doomu aadama bari na ñu nu tooñ jàpp bari na ñoo xam ne nag danoo dugg ci ak loxoor ñu jàpp leen nattu la mais war na ñoo xam ne tey ña nga fa defuñu dara bi nga génnee kaso tey safee tey même pas une semaine Dakar Buzz seetsi la pour nga joint say kàddu wax la na xari taxawaayu Dakar Buzz ginnaaw bi loo tàggoo. avant avant loolu may ma rek ma am lu ma lu ma yeggale parce que damay xool chaque lundi ba vendredi maanaam détenu yi garde bu laalee buntu bi rek xool gars yi ñi nga fa de dañuy tëdd sangu mais du nelaw boo ñëwee xam nga garde bu laalee buntu bi rek wallahi azim da ngay def nii xool ba xam yow lay woo si nga koy dund quatre ans nga koy dund cinq ans heure bu gàtt laa lay buntu lundi ba vendredi yaa ngi dund yaakaar ci journée bi ba dix huit heures bu dix huit heures bu ñu la woowul tribunal rek après koo ci xool kanamam da nga gis kanam bi découragé weekend bi ngan di weekend day mel ni weer mu leer ne samedi doo dem tribunal dimanche doo nga war a toogal xaar lundi xam nga mu nekk lu metti quoi ci ci ci côté garde yi tamit man rëbës mun ma fa compter cinq garde yu bon quoi yàlla ka tax may wax mun ma fa compter boo ma waxoon compter cinq garde yu bon mun ma la ko wax. torture yi ñuy wax tamit doxuma ba yem ci quoi police lañ torturé booy yi dafa am benn chambre boo xam ne moo la tudd chambre 24 képp ku fa ñëw man dama la fay fekk booy manifestant dañ leen dóor ba damm leen. ñu toj seen bopp yi bu ñëwee chambre 24 dañ leen chambre 23 dañ leen dugal di leen yóbbu infirmerie fa lañ leen di faje quoi mais am na ci certaines gardes yoo xam ni jot na sëkk administration pénitentiaire jël seen responsabilité parce que Saliou Diop bu dëkk parcelle chef mangaan moo damm loxo bi ba ma ko mu daana mu kàjj ko yaa ngi dégg ñu yaakaar loxo dafa rëkk na loxo dafa damm. ki ko def loolu garde la. ki ko def loolu garde la chef mangaan lu tudd damay wax turam léegi nag jot na responsabilité yi responsable yi nga xam ne ñoo nekk biir rëbës. que ce soit muy directeur bi wala ñi nga xam ne ñoo fa am ay ndombal tànk yu kawe ñu wax ak yenn garde yi comme ça ñu ñu ñu wàññi yenn yi quoi man daal kooku laa fa xam ni vraiment te damay dem ba ci le colonel Ablaye Diagne lépp lu mu nekkee woon rëbës man dinaa ko wax moom daal laa fa gis koo xamante ni vraiment jot na ñu génne ko administration pénitentiaire parce que kooku tey foo xam dañu ne maison d'arrêt et de correction nga fay gaañ nit kooku dong laa mën a lim rëbës ba mu daj ci koo xamante ni. dafay abuse carrément am na garde yoo xam ne nag ay borom baax lañu dañuy dugg ci biir néegi dañu conseiller dañu ñaanal am ñoo xam ne maanaam liggéey bi dañ ciy jaamu yàlla parce que nit li nga liggéey ci ngay jaamu am ñoo xam ne liggéey bi dañ koy respecter à la lettre loolu lii moo am rëbës et fi may tëje mooy di sant waa Dakar Buzz parce que vraiment ay jàmbaan ngeen quoi may ñaan site bi yàlla na dem ba ba raw National Géographie yàlla na dem ba raw National Geographic xam nga loolu laa leen di ndax nit foo nekk rek da nga war a liggéey quoi liggéey jaamu yàlla la te vraiment yéen a ngi def liggéey bu remarquable gis nga journalisme liggéey bu noble la c'est pas hasard rek ñu ne mooy quatrième pouvoir vingt cinq million ay jaam ñoo nekkoon ci Afrique benn journaliste moo leen moo leen libéré kon journaliste dafa war a xam moom mooy kan wallahi journaliste dafa war a xam moom mooy kan benn journaliste bu nekk France français la moo démoli esclavage moo ci bind bind xeex ko ba njaam jeex kon tey journaliste yi war nañoo am beneen taxawaay wàññi nag débat politique yi Sénégal du Dakar kese journaliste yi nañuy génn dem ci àll bi fi Sénégal fañ naan Sénégal ñu dem di di di di jëli information yoo fa nekk di ko indi pour que nit ñi di xam jàngoroy sénégalais yi loolu mooy seen devoir ñu wàññi ñu wàññi débat politique yi trois cent soixante cinq jours télé yi politique rek la ñuy wax te yow dëkk boo ko bëggee développé nga ni éducation duñ ci wax nga ni santé hôpital junni da lay rey éduca euh, sécurité dëkk bi amul sécurité dund bi seer na maanaam ci yooyu lañ war a taxaw wax suñuy ressources nañ dem di ci indi ay information di ci waxtaan pour que nit ñi xam ne am nañ lii am nañ lii am nañ lii foofu la débat bi nekk mais débat bi vraiment nekkul ci trois cent soixante cinq jours yëpp xam nga dañ koy politique quoi vraiment maa ngi sant waa xam nga di leen gërëm quoi jaajëf jërëjëf kon mooy waxtaan wi soxoon ak ma doomu Pikine ñun dem beneen jëmmi jamono lii ko wax ne lépp li muy dund rëbës te ñaan yàlla def jàmm ña fa des tam yàlla yàlla génne leen ndax euh, du palaasu góor jërë ngeen jëf